ngeen ko waxee sànq ba tey euh, Toumbouda du teew ñuy nataal ñëw ci ki nga xamante ne moo waree euh, waral bis bi waral seize baas yi mais deful lépp lu mu fi def rek nu ko def ngir jëmmi Cheikhul Khadim ak jëmmi safar gi di ki nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 euh, le roi de Guédiawaye le roi des arènes bon comme ni ko ñëpp di waxee le roi du <laughs> mais bala daa doj de dégg nga loolu <laughs> waaw ñu amaat contentement bu baax a baax a baax ndax euh, bañ ñëwee fekk nañ fi mbooloo mu takkoo takku takku euh, fekk fi safar goom te macha allah boo ñëwee da ngay dund safar 100 pour cent day mel ne yaa nga biir Touba digg Touba toog ah, ñu fekk ko mu togg ay xaritam ak am di jàmmam tey euh, képp kuy site internet rek ñu ngi la fekk fii képp kuy xaritam képp kuy am di jàmmam ñu ngi la fekk xëy na lépp mbaax moo ko maa ngi lay nuyu champion. naa la maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu di nuyu ñuy seetaan ñëpp vraiment di kontaan ci yow ndax euh, bëgg bëgg bëgg Serigne Touba ak Serafal di la ñaanal jàmm yaa ak sa patron donc maa ngi lay siyaar bu baax di kontaan bu baax waaw. maa ngi lay delluwaat ziar di kontaan bu baax baax mais Balla ñu gis nii ren ñëpp dañ doon naan Balla est-ce dina safar. ndax dafa tombé li nga xamante ne mooy mbasum corona bi mu mel ne bañ ñëwee ci safar gi danoo fekk mu doublé li nga xamante ne mooy at yu weesu rawatina li nga xamante ne mooy daaw noo ko dundee nen ak foo jaar. waaw doon taalibe Serigne Touba rek li may def ma ma gëm ko en tant que taalibe bëgg ko en tant que di ci am yëg-yëg ci yëg-yëg bu baax a baax moo tax euh, defoon nañ daaw fekkee déwén li daaw li li ren li moo ko ëpp. donc ñu ngi ciy sant yàlla baax di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi nga xamante ne moom la ñuy jàppale suñu bopp ñun ndax Serigne moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la moo tax ñu doublé lépp sëriñ Touba dimbali ñu si nag bu baax a baax ndax yëg-yëg la rek ak sentiment bi nga xamante ne bu fekkee nekk nga murid nekk taalibe nga am loo yëg sa wàllu bopp loo doon def Serigne Touba mën na la taxaw ba dimbali la nga def plus que li nga defoon loolu rek la. sëriñ bi daal moo ci teg loxo waaw sëriñ bi daal moo ci teg loxo te lu am la lu leer ndax Sëñ Tuubaa mu tànki ginnaaw tànki kanam la am nañ naan ku Sëñ Tuubaa buux ca kanam ngay jëm mais Balla mu mel ne ku fekk si la tey tuubaa fekk ko ci waar wi wala nga fekk ko tey ni muy dundee safar gi beneen la ngay gis loo xamante ne c'est diamétralement opposé ak Balla Gaye mi ngay gis si biir làmb waaw làmb moom métier la métier la bi nga xamante ça n'a rien aussi aussi nit personnellement parce que nit nit la mën a weesu mais bu ñuy liggéey dafa méngoog leneen loo xamante ne du nit naturellement mooy dox bon loolu moo tax nag fi nekk ba ñu gisee da naan kii du Balla Gaye te Balla Gaye la am bi Balla Gaye mooy wax ak yow ci média wala nangam ci tour mais Omar Sakho moom ngay waxal actuellement li meex yow taalibe Serigne Touba donc loolu kese Omar Sakho laay waxal nii actuellement taalibe Sëñ Tuubaa mais ñu ñëw fekk fi li nga xamante ni gaa yi ñu ngi dund cant gi te sa amaana commencé gul mu mel ne Balla Gaye tam dafa am euh, relation bu di tax ak nga xamante ni ñooy tuddkatu yàlla di ay jàngkat euh, je peux ay jàngkat ndax safar gi su ma une semaine la war a dem. amul app. amul app. amul app mais chaque jour ak cantkat bi war a cant sa diggante euh, jàngkat yi lan la. waaw ñoom samay nit lañ ñu jàngkat xasaayit yëpp. samay nit lañu samay am di jàmm muy bi muy bu tijaan bi muy bu laayaan bi muy xaajar bi ndax ñëpp dañ ma ràññee xàmmee ma ci li may def xam ne man li ma bëgg ak li ma yëg moom laay def mooy topp ci yoonu siraatal mustaqim ci lu baax di ci nekk ak ñoom di ci tase ak ñoom ay milliers yu bëri donc moo tax ñëpp nekk sumay xarit bis bu nekk rek am na koor a jàng yàlla boole ma ak ñoom nag ma ci sant Serigne Touba bu moo tax daal amul àpp mooy li ma la ko xam nañ fu mu tàmbalee mais xamuñu fi mu yem. amati solo xam nañ fi mu tàmbalee mais amul fi mu yem te man moo damay bañ émission bi yàqu tourne minute xam nga lu tax daa am euh, sikar yu garaaw yu may dégg si ginnaaw. <laughs> damay bañ a tegaale émission bi mais Balla sa digganteeg presse bi ba soo wootee surtout presse en ligne bi nag. Hmm. ba boo wootee ñëpp bàyyi seen liggéey ñëw lan la. waaw ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ba baay ñoo bokk liggéey bi aussi tamit parce que liggéey bi mu man mënuma dem sans ñoom ñoom mënuñoo dem sans man. ñu bokk même génération ñu sekkante jàmm ko si ñu ñëpp parce que ñu fi daje ñëpp ak ñeneen ak ñeneen su may xar dañ Médoune moom yàgg nañu xam nga ne du tey am na fi ñu jaar man moom Maawa Bekkaay Mbay ak ñeneen ak ñeneen tellement que mooy li ma la wax yàgg dafa am solo Lamine Babacar kon noonu ak ñeneen ñi nga xamante ne peut-être maa ngi leen doo gis. ak kéwél xaw ma kéwél <laughs> Cheikh nga sama xarit la ñoo bokk géejawaay ak ñeneen que peut-être ñoom. boo ma soxlaa dara dama koy am ci ñoom ñoom bu ñu soxlaa dara dañ koy am ci man ba tax na loolu moo tax ñu nekk ay xarit ay waay da nga yaakaar ne sax ñi dama yàgg dund ak ñoom wala sumay xarit lañu wala nangam mais fekk milieu bi la moo ñu boolee waaw mais daal jàmm ci nekk. waaw mu mel ne nag ren moom li nga xamante ne mooy làmb lépp dafa taggatémbe maanaam bëre yi benn làmb mun nañ ne amul wala yi jot am sax euh, par la mais yéen mbër yi surtout yéen ñi nga xamante ne yéenee lee lañ tuddee les ténors ñu si bari tey ji boo demee kër mbër tout le temps nga fay fekk ay facture courant facture ndox à ordonnance ak lépp ba pare ren mbas mi am ñii di ñëw leen di soxla yi mbas mi am ba pare tey mën nañ ne mbëri ni daan fayekoo fayekoo ñu ko yow en tant que mbër nan dundee loolu ak mbas waaw man moom damay sant yàlla rek ko dëgg yàlla ndax xam nga nit moom boo gëmee ñëw rek da ngay xam ne yàlla nga doon taalibe amul looy ragal amul lu ci toog naa fi deux ans trois ans bëriwul teewul li may li may war a def maa ngi koy def ñu ma war a fajal seen soxla maa ngi koy fajal seen soxla ren aussi tamit toogaat naa deux ans bëriwul teewul ma amul loo xamante ne dama koy def mu koo def kon loolu doy na sant yàlla aussi tamit yàlla moo ñu boole jaami mënoo def lu baax aussi tamit di am lu bon mënul nekk c'est possible ba na daal àdduna noonu la milieu bu ñu nekk tey day neex soo mën a xarit moo si bu ñëwee tamit aussi bokkoo ñëpp ba ëllëg loo soxla rek suñu borom mun la cee jàppale man noonu laa ko jàppee te yàlla noppi na daal waaw aussi tamit feebar bi moo tax ak corona bi li gars yi di wax benn combat saison bi sax ibbeegul yi ñoo yàqam ci mais saison bi sax ibbeegul nag wax dëgg yàlla waaw incha allahu léegi affaire bi jeex ñuy bi saison bi gars yi mën a jëflante dëkk bi neex xumb waaw tuuti mais boo xoolee tey moom xam naa ne lu jëm ci wàllu làmb duñ ci yi ndax indiw ñu fi dañ la fekk ngay safar mais du si ñàkk loo xamante ne tuuti rek li naan ñu ko ci compal yàggul dara ki nga xamante ne mooy sa rakk di sumbulu di rakk ci sa soxna euh, am na borom kër mu mel ne dafa def polémique bu bari ci Sénégal nag euh, te mun na ne tey yaa yar sumbulu ndax nekkoon na sa kër mais polémique bi mu def mooy euh, sëñ Ablaye Diop mi ko takk tey ay kilifa ñi ngi génn bon ay soi-disant ñu ma mën a tuddee ay ñaankat naan sëy dina dem ak du dem te muy sa proche yow jege la boo déggee loolu lan la lay def. non miis naa wax miin naa wax xam nga boo miisee wax miin wax. jaral du la jaaxal. ni nga koy déggee noonu man noonu laa koy déggee mais li xew suba kenn xam ko suñu borom rek moo ko xam suy jàmbur du ay internet sax nga koy toog naan diw nangam walla diw nangam suma suma sœur suma rakk la mën naa ne sax suma doom la. ndax tey yàlla boole nañu ma xam ko bu baax mu nekk borom jom borom ful la borom fayda jëkkëram miinu ma ko xam naa ko bu baax xam naa ni ko baax la eh, te nit mënu ma wax loolu loo xamante ne xaw ma ko ci ndax eh, dépassé naa loolu jomm naa loolu waaye daal yàlla na yàlla jàppale te taxaw leen waaw luy xew suba nag ku ko xamul mënoo xam li nga xamante ne waaw yëfu jàmbur <laughs> man ma loolu daal. doo ci na solo mu mel ne kàddu yi ngay gis am na solo ah, bi nga xamante ne mooy mujj nag suñu mujjantalu question mooy Balla ak làmb ji di ñëw foo ci toll saison booru ubbi ak say préparation ak at ñëw. waaw nekk ci suñu préparation. teew li ñuy def nii teew ñoo entraîné dañuy xëy fajar dem entraîné ñoo tax ñu reposé wu continuer ci liggéey sëñ waaye daal ñu ngi waajal kon nee nañu. dañuy daal sonaanoon nekk suñu entraînement di nuyuwaat staff rek ak encadrement bi ak staff bi Mbaye Diop Talla Simon Pape Mama Fall xam nga ak Omar ak Aziz Ala Ndiaye Baye Ndiaye Massata genre ak Baara Gueye Kor Ndiak ñooñu ñëpp maa ngi profité di leen nuyu ci li nga xam maa ngi koy def mais daal saison bi ñoo ngi koy waajal te xam naa ne incha allah bu tijjee moom dina tàng dina neex. ah am nañ combat combat yi taxaw na kay. Ah, mais yow laa wax. combat ah, taxawagul sa côté. luy loolu da ngay laaj wala nga bëgg a xam. damaa bëgg a xam man sama bopp laay laaj de. waaw mais a néew ci réew mi it. déedéet damaa demoon Gabon. Ah, Gabon <laughs> Gabon. waaw léegi damay laaj de. waaye combat bi taxaw na. Gris Bordeaux tapet la mooy ragal bi mooy bëgg a daw waaye combat bi taxaw na. dañu nekkaat di wax naan combat bi. man maa bëggoon Balla waxal ko boppam. kan moom Gris Bordeaux xam nga xam naa ko mais maa bëggoon. wax foofu Gris Bordeaux mooy ragal mooy tapet bi ragal la combat bi taxaw na. moom ba pibis la naan kii tàngal bi giri euh, euh, bi doom bi fuur euh, si à cinq mille Modou Lo kuus mu tàdd mooy sips waaw ah, dégg nga dégg nga am na solo noonu man man Lirou Diane xam nga nu ma ko tuddee tonton Mbédoune anti diwtiir lu ñëw ma takk ci ah déet ku laal sama rakk ji ma takk ci du ko jóg ma takk dee. da nga da nga cee fier dama laa bëgg ah, loolu ma. c'est fier. c'est Balla Gaye sa c'est fier c'est Balla Gaye 2 c'est normal. lu ci waay mën lii. laaj naa la ko yow. yow mi laa ko laajaat. lu ci waay mën loolu téye sa làmmiñ te nopp muut. nu mu nekkee sama xarit. nekkee sama goro. yow yaa na ma dag maa nopp amat seen a maye. ma ko waa baax na su boobaa Balla mm. ma wax ni amat seen ay sa papa moo lay maye yaa ma ko wax. mais Gris Bordeaux wala ko téléphone de. kan mais Gris Bordeaux naa da woo téléphone da la menacé Lirou Diane ak. firé bi toog sa trail bàmmeel. Gris Bordeaux daf maa woo téléphone man di ma a man kii Gris Bordeaux. dañoo tase waaw kër papaay bës lan daje. voilà bi ñu dajee mu nekk fa. di def ay manière am ne di ma jéem a napp maa tey sama rakk ji Balla Gaye 2. mais noo ko gisee moom kan giri li ma ko gisee mooy dafay entraîné di nëbët di ñu bëgg a teg xel. day yaakaar ni ñun dañuy nelaw ñun nelawuñu. daa bàyyi koo xool xam mi ngi liggéey. daa bàyyi wal kan giri. man giri man giri xamul lu ko ma ah? waaw mi ngi sangu daa gën a ñuul ñuul xam giri dafa ñuuloon <laughs> ba pare mu a ñuul. da nga am corona. kan moo corona dafa ne a ñuul. loolu moo tax ma loo liggéey rek liggéey nañ loolu ba teg ñun giri li mu bëgg xam ko je connais très bien Gris Bordeaux. micro baa ngi ko jàppee fii démb fële lan yàlla da doon wax courant bi. courant bi damay ne woon dañ na ci yaram bi nee na courant day yokk doole moom wax lii moom guri billahi wallahi taala ma ne ko yow courant bi est-ce que dañ na sa yaram courant bi da tut ci yow mu ne ma courant day yokk doole moom giri moom wax li nee na courant yokk doole kon daf ma bëggee Balla Gaye jàppe mu xam ne amul doole seede yàlla non dama la nga xamal benn affaire ci Gris Bordeaux sa connecteur ba Gris Bordeaux Balla Gaye mos sa bëre 30 minutes fii la ko jàpp dóor ko ba muy jaawale presse bi ba muy piis naan nii. bii yoon nag mii bii bii di ñëw bii nii lay xool day. ba sa loxo ma ñëw ba sa loxo tonton Médoune mu mel ne Lirou Diane yëkkati na kàddu yi am solo. Balla boo toogee Lirou Diane di wax euh, genre wax yi nga xamante li muy wax moom ci xoolam la ko tibbee peut-être nag euh, d'une part day xaw a reetaan suñu koy seetaan mais da nga xam ne ay dëgg la ah, la nga yëg. non Lirou sama mag la xam nga Lirou moom waxuma la sax mag nee nañu xale boo koy lebal da nga lu baax. li may yàgg xeexal nii du tey nekkul tey de man dama nekkoon ci école école euh, école de lutte moom mu nekkoon ci écurie am ñu daan bañ am ñu daan nangu moom mu daan tax di ma défendre se boobu sax site internet yi melul nii kon lii muy defal ma nii da koo yàgg gëm ya ko yàgg te boobu amaguma mënaguma sama bopp dara kon li muy wax man dama ko xam te xam naa ne daf ma lebal lu baax ma fay ko lu daf ma lebal baax ma fay ko lu baax rek. mais suma mag la suma lépp la ni mu mel nii peut-être internet bi moo tax ñax nit ñi xam nga loolu waaye yàlla xam na ne li may wax nii billaahi wallaahi wa taalaahi noonu la musa mel ci man waaw di xeex ngir man di wax ngir man jote naa ku ne ci àdduna loolu ba may nekk xale ba léegi la ma ñëw ci école bi cinq am ñuy bañ am ñi nangu mu taxaw na leen kii bi bis ngi ñëw billaahi yéen ñëpp da ngeen nangu waaw te loolu du tey mm-hmm. waaw ba mu koy wax du tey billaahi waaw mooy loolu moo tax ma bëgg ko bopp lu mu def neex na ma waaw loolu la hmm, lan euh, li may wax loolu xale bu ndaw la mhm. barki Sëriñ Bamba xale bu ndaw hmm. ma ne ko <laughs> bañ bañ nangu dina yàgg di dégg waaye Balla dina téye loxo ji ci làmbam te boobu ñu bëri ñu ko woon moom ah. waaw moo fi man bañ bañ nangu Eumeu Sène man dimbali ma naa ma Eumeu Sène ñëpp Balla Gaye Eumeu Sène suy bëri Balla Gaye day rappi rappi gërr su ko ñemewul du def gërr waaye ñemewul Balla Gaye mooy tax suy bëri ma day def gërr kan jë bu ma waxi Bamba Dieng Bamba Dieng nga dimbali ma nga ne dama ne la suy bëri Balla Gaye yaram day def gërr tonton Medoune tonton Medoune gis nga wax ji yëpp li ko indi mooy euh, dégg naa fi mu ne nii Lirou Diane Bombardier da ko tëkk na ko di nga dee ma doon sa jabar loolu di wax ci Bombardier Bombardier man moom laay doon jabaram moom Bombardier laay doon jabaram su ma moo may njëkk a dee su ma tuum su dee yaakaar loolu la yaakaar moo may njëkk a dee koy man doon jabaram moom su ma bàyyi lu wax loolu looy ñaanal Balla Gaye yàlla defal ko jàmm te mësul ko cat at làmmiñ yàlla suturaal ko mu àggaleeg sagoom ndax xale la dafa nekk ci yoon man tubaarikàlla macha allah euh, kilifa yàlla moo koy def doomu aadama. waaye kilifa la. barki Serigne Saliou Mbacke at yi néew lool waaye kilifa la. ba nga xam ne bala kilifa la fajar teel nga ñëw buddi këram façon nit bu nekk nga koy fekk. ñu di ko xaar mu yeewu. nga xam ne bala kilifa la nan ko ñaanal. te yàlla di ko jox li muy jox doomu aadama yi ndax lu muy am jox ko doomu aadama yi nan ko ñaanal yàlla defal ko jàmm musal ko ci cat ak làmmiñ bala xale la sa trop petit bala ba muy nekk roi des arènes vingt cinq ans la am c'est que bala gars yi dañoo xamul bala sa connaît bala sa connaît bala gars yi dañ koy gis ni rek ndeysaan yàlla mooy def doomu aadama kilifa yàlla mooy def loolu waaw d'accord naa ba tey eh, eh, eh. non waaye maa sama <laughs> waaye non Eh, déglul waaw may xam may ma tuuti ma ñëw yow ko baax nga dama ne dama ne loolu yàlla moo koy def ci doomu aadama yàlla moo koy def ci doomu aadama laa wax kilifa du tuut kilifa du tuut barki Sëriñ Fallu Mbàkke ku ñëw mu mën a ànd ak yow mën na ànd ak façon mu ne ndax xamul tax ku ñëw mu mu yaatal Balla ku ñëw mu yaatal Balla su ko neexoon def yeneen mbër yi def ndax am na mbër yoo xam su suñu amee combat wala amuñu combat doo leen teg bët waaye Balla Gaye soo ko fekkee seizième lay teg ci buntu kër gi toog waaw di daw presse bi ba pare euh, pour nga gis leen problème nit da koy am problème waaxu ñëw te léeg-léeg benn jour damaa ñëw dajeeg benn paa bu ñàkk toj képp mu ne ma sama doom Balla Gaye laa bëgg a gis ma ne ko lan la mu ne ma damaa am soxla ma ne ko soo gisee sa aajo faju ma ne ko soo ko gisee sa aajo faju ma ne soo ko gisee sa aajo loolu yàllaa ko defal ci moom te nag mooy nekk di wax xam ne su yorul doo ko gis ndax am na complexe jàkkaarloog yow di la gàntu nga am sa soxla nga am sa soxla ñëw ba ci këram ah? mu mu taxaw ak yow mu am taxawal ak yow yëkkati yu amul lum la jox doo ko gis su boobaa waaye nit ñi dañoo comprendre. sans verser waaw waaw. waaw liiru liiru liiru pour wax ak yéen. yàlla defal ko jàmm. da ngay saaga. mais abdoulaye abdoulaye. ah. salaamaaleykum ba ñëpp xam na si tey jamono bi ñu toll nii mën nañu xam ban liggéey nga am nga feet pa tey togg ay ñam pour jël ay xéwal di ko jox askan bi waaye ban liggéey nga si am. non xam nga àdduna moom toute question sa togg ay ñam. di ko jox doomu géejaay wala keneen ak keneen déedéet ci safaru Serigne Touba lañ nekk ñu nekk ay taalibu Serigne Touba xanaa boo amee gan dëgg yàlla nag nga togg ay xéwal ñu ci war a lekk lekk ñu ci war a naan naan loolu kese la mais du dara euh, doon taalibe rek la daal ci gàttal. sama deuxième question mooy jamono bi toll nii ginnaaw nee mbas mi wàññeeku na ñii ne jóge na fi ndax di jox rendez-vous euh, sa fans yi. nga dellu école de lutte ba li nga xam ne mooy entraînement yi. maa yaa gën a waaw. tontu Médoune mu mel ne nag ah, Fallou daa egsi te bëgguma di sàllawlu turam ndeysaan ndax turu kilifa la yor Fallou. Fallou si loo nekk. Eh, si loo nekk. Eh, mais Fallou tey tey tey tey tey tey lan nga yëg. man Balla Gaye bii sama xarit waaw sama fils ah. waaw waaw rek kii kii bii yo Baye waaw chaque jour ñam mhm. lu koy joxe. waaw kii balo rek Oumar Sakho rek. kii kii kii. balo gi xam naa ko. waaw moom sama xarit la. waaw ah, man. sama magal mu jox ma waaw. bak sëñ Fallou. liiru mi ngi jooy liiru mi ngi jooy Fallou waaw. waaw. Balla. waaw. ñu galaaw. ñu ko. sama waay la. ndeysaan. mu bëgg. nga mu fekkee. waaw waaw. mu teral. waaw mu fekkee. waaw. fu mu bu bëgg a direct moom la waaw chaque jour koy def waaw Balla Gaye ngi sama xëy la Balla moom bu fan lay am yóbbu yàlla bu du fan xéewal bak faalo ah gis ngeen nooru tubaarikàlla tonton Medoune tonton Medoune yaram doo <laughs> ndax euh, Fallou wax yi mu wax euh, ci yow mi koy dégg dangay xam ne euh, moom moomin la te li muy wax xëy na day waxal yàlla rek franchement day waxal yàlla te xëy na li ko Balla gee ji lay wax ndeysaan liiroo ngi jooy liiroo ngi jooy ku dul liir sa war ngaa jooy man damaa nekk si kii bi sa damay bañ a jooy <laughs> mais yàlla na yàgg daal Balla sa dernier mot. waaw sama dernier mot maa ngi maa sant bu baax di bëgg waat ñëpp rek di baal ñëpp di baal ñëpp di suma sumay dëkkandoo yu baax baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne yëg naa na seen bëgg-bëgg ci bëgg Serigne Touba te jàppale seen mbër jàppale seen xarit bu xewlee ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen ité mooy ñu nekk ci waañ bi ñoom Cheikh Ibrahima ñoom Calki ñoom commissaire ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm liiru jaan suma mag dafa buju saakees njaga badara ñoom ñëpp maa ngi leen sant baax di leen gërëm ak ñi ma gis ak ñi ma gisul ak ñi nga xam ne seen jot mayu ko teew ñun ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi leen ci nekkal fii en tout cas daal sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di leen sant wax di leen gërëm di baal ñëpp àq